on, y va avec euh, l'AS. L'AS ñëw na euh, euh, avec Benno bakouyakar l'AS acte la mort de Benno Bokuyakar. Disney Dembo, Batahal binga hamne le président de la République Makisal Sall bind mustafa puis euh, faire euh, ses adieux au groupe euh, Benno Bokk Yakar. naka nga mëna jangaté jàngate bataaxal bi ni ni ni bla ñu dugg ci li nga xamné mo nek vraiment vraiment mo yi nga xamné le président Macky Sall yëkëti nako ko nako. mais d'abord bi si Hmm. Moy daf ñu conforte ñu doon wax naan Benno amatul. Mm. xam nga Benno assemblée nationale moko ko des Macky xam na d'ici quelques jours dañuy tass assemblée. c'est vrai bu amé benn bërëb bo xamné fa lañuy dajé di waxtaan assemblée nationale moko défa moko défa conseil ni ngui waxate sax conférence des présidents dajeetuñu. Mhm. rencontre amul dara amatu mhm. légui kon fenn fiñu ñu kessé fo xamne xam fay ñëw fekk fa parti yi fa dajalo assemblée nationale rek la. Mhm. légui bu tassé assemblée nationale lañ la lan la ñuy dootuñu deseeti dara. donc benno dafa dee ba pare Macky dafa officialiser deewu Benno. mais Benno, déna kérok keroog leen gagner élection présidentielle. ba leen gagner élection présidentielle fa la dee euh le benno expire jeex donc ñeneen ñi fi desoon moy assemblée nationale te fofu dañ voto ñu def bloc dem parce que yaangi doon dégg ku nekk commencé woon di xalaat naka ngay dem suba fan ngay jaar ak yu ni mel benen lecture buñ ci def tamit mooy Macky fay anticiper par rapport à Amadou Ba hmm. xam nga li ma la wax Amadou Ba bari na ay ténor yu nekk benno yëpp récupérer na leen téye leen pour yow euh, annonce bi nga xam ne Amadou Ba def na ko pour lancement de son parti le 9 bokk na lu tax euh, Macky Sall bu ko couper l'herbe des pieds merci oui bu ko deful won Amadou Ba dina ko dóor raakale bo xam du xam fu mu koy lijjantee kon Macky mu ngi mm, vraiment c'est ay euh, calcul politique bien sûr bien sûr parce que il est au courant de tout xamna na fi responsable yu bëri nga xamné wax nañu waaw Amadou Ba nopi noppi. mu mm. déclaré rek la xam ñu jóg ànd ak xamna nonu ba nopi nee nañ ko diw ak diw dem nañ diw ak diw dem nañ mu ne kon ki suma xeye tok mu woté ñepp tok ci taal wër ko kon nii da ngeen Amadou Ba récupérer benno la ñuy def titre Amadou Ba récupérer benno mu ne noonu Amadou du fi récupéré benno bala moo récupérer benno ma tas benno ku nekk xam fa nga xam nga dem légui nak li am moy ñaari bloc moy formé wu waaw bloc bi nga xamantene Amadou Ba la ñuy àndal te boobu bloc bobu allié ñoo ci ëpp ak bloc bi nga xamantene ñom ñoy ñooy les makistes. Mhm. Macky Sall yi nga xam ne ñoom Macky lañ gëm mooy ñu naan lay Macky dans nos veines. Mhm. ñooñu ñooy ànd ak ñom Amadou mam Diop Abdoulaye Daouda Diallo ñu ne consort ak ñooñu. Mhm. légui nak ñaari bloc yi élection législative fa lañuy xamé kan mo mën ndax Amadou ñu mu àndal ñoo ëpp doole ndax euh, benen bloc bi nga xamantene ne Macky Sall moo leen jiital ñoo ëpp doole. mais ak lepp lo ci mënti am tax bi mu tax benno c'est purement politique. parce que yëg na ne amadoo ngi ñëw si ginnaaw te amadu bu yëg see amaana mën na mën na mën na leen a sonal mu ne su ma yéexee suma suma jiitoo rek après suma tasul benno dafay fekk ñu ne amadu ba récupérer na benno parce que l' essence des parties ñu ne rejoindre ko parce que bul fàtte ne de. Mhm. bi ñuy tabb amadu ba ñu bëri xam nañu wax waxoon nañ ne bokk ay information que ne.

ñoom daaw Daouda jàlloo mooy ñoom ali Ngouille Ndiaye ñi nekkoon ci biir parti bi ànd ak ñoom foofu la jafe-jafe bi nekkoon. Mhm. léegi nag comme ñooñu tey ji dem nañ ba waaje mi ngi wër dem seeti Idriss Seck dem seeti kër kilifa diine yi dem gauche dem droite ak yu ni mel ak yooyu Macky Sall du du xaar ba Amadou di récupérer Benno muy doog a taxaw naan tas naa Benno daf koy tas balaa Amadou récupérer léegi nag su ko def lu mu fa am dinañ. affaire am quoi parce que Ben tasna après le coup neex waaye chacun est libre mu dem fi fi fi fi ñu bëgg dem mais bo xolé ni mu ko ni mu ni mu bi sax ngay xamné li amna est-ce que l'on peut justifier cette phrase qu'on Macky dit avec ce changement s'ouvre maintenant devant nous une nouvelle page politique euh, mu mel comme ñom peut-être ils ne vont plus euh, s'appeler euh, li nga xam ne Benno Bokk mais ñu ils vont être présents mais euh, si beneen tour Macky mustafa benen benen coalition la ñuy former. Mm. coalition bobu ñuy former peut-être xam nga bu ñu ko coalition moy coalition bi mooy dem élection législative. Mm-hmm. defar seen i liste dem Amadou Ba dina am coalition donc Benno day dal di xar ci digg bi léegi alliés dina am ñom duñu gis seen ci coalition dañuy bëgg yeggale ak lég yi nga xam mom lañu amoon. mooy benn Moustapha Niasse gis ñoo xamante ne dañuy dañuy dagg dem na man damaa dool ci coalition yi mm. nga gis ñu nekk ci parti socialiste ñu dagg ne du dem àndi ak Amadou Ba par force yooyu après dafay am léegi nag bu ñu defee noonu après léegi ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy fractionner ay voix mm-hmm. te ñu ngi jëm élection législative euh, ci euh, raw gàddu yi euh,

la track qui s'annonce là aussi tamit di bu bu nekkee ci diggante biir élection yi y' a mm. beaucoup de choses yoo xamante ne mi ngi ñëw suñu kanam et loolu lay jéem a sóoli di ko calculer mais dafa am beneen gis-gis moo ci gam. muy ban Mustapha. dama jàpp ne Macky mi parewul pour ñëw tamit. Euh, pour ñëw fan. pour ñëw Sénégal gi pour euh, ñu doon xaar Macky Nan Macky lañu gëm ak jaakaar ni pour man. ils vont déchanter. Ah oui Non, non, pour non. pour au Sénégal, euh, il est derrière Macky Sall Non, mais tout le il est derrière parce qu'il est sénégalais. Mm. mais ñeuf fi engagé politiquement c'est pas pour demain ñëmé ko sax quoi ñëmé ko bokkul ci euh, table ak yoy motax man dama japp né tay ji parti APR parti APR mi ngi nek di len tardel waron na tann ko xamantene moy assurer intérim bi mu jël mbir mi doxal ko dem taxaw buñ ko gisé mu nek un général mais parti APR n'a pas de général actuellement mm. suñu armée lañ wax dañ ay généraux rek la mais amul général amul ben ki nuñ koy wax amul amul amul semga bo xamantene moy moy mom, mom la ñeneen di ki Eh, ñi fa nekk ñëpp ay ay ay kuy yu mag lañ mais amul kenn koo xam ne mooy tax ne kii mooy numéro 2 APR te dañ ko soxla jamono ji. Mm. parce que dañuy jiite ay combat dañuy def yëpp actuellement c'est Abdou Mbow qui joue le rôle euh, à l'Assemblée nationale. mais boo génnee Assemblée nationale boo demee fële bu ñu nee la ku jiite APR ku topp ci ginnaaw Macky koo may wax. Mm. boo ma nee Abdoulaye Daouda Diallo ñu ne déedéet Amadou Mame Diop mi ngi ñëw ci wet gi keneen keneen noonu euh, indil ma Amadou Ba wala keneen ak keneen ak keneen et consort loolu c'est un problème. Mm. mais une chose est sûre et certaine lettre yi boo ko jàngee. bokkul ak ni ko Karim daan waxee ak yi ni mel noonu maa ngi ñëw wala préparé leen ñi ngi def non non non non lettre yeewi la. Mm. daa yeewi. maanaam ku nekk na dem fu mu bëgg a dem. lu golo xam bootee doomam lu golo xam bootee doomam. maa ngi fii toog Casablanca ak Paris jàpp samay def samay activité dem ñëw noonu ak euh, noonu noonu la ko jàppee et loolu je pense que war na leen naa nag yee ñoom ku ci am ambition politique nga jug taxaw jël sa jël sa courage à deux mains def li nga bëgg a def. parce que courage politique. Mm. Ousmane Sonko fi mu yegg tey ñu mais courage politique moo ko may. ça c'est vrai. ndetteelu gi muy ndetteelu ne ñàkk courage politique moo ko may. Mm-hmm. pour man ñoom ñi nekk benn ku ci ambition bëgg toog fi président Bassirou Diomaye Faye toog nang léegi nga koy commencé liggéey mais bu ñu yaakaar ne Macky mooy def nit président loolu ay caaxaan la. Mm-hmm. Macky mënu fee fal kenn bu doon fal kenn Amadou Ba falu na. non Amadou Ba moom Macky Sall l'a combattu loolu moom euh, du secret pour personne mon moom euh, Macky Sall l'a combattu <laughs> non mais ça c'est vrai en plus Moustapha am nañu ne jox chaise ba non Macky Sall l'a combattu hmm? on ne sait pas les raisons euh, L'un moo tax Macky Sall combattre qui dit Amadou Ba man jàpp naa ne Macky Sall qui dit le président du parti Pastef Ousmane Sonko ak kii di Amadou Ba ñoom war bind li nga livre parce que les gens ne savent

force yi dañuy tasaaroo. Mhm. bu ñu tasaaroo ku nekk da ngay jóg démb dem taxañil sa bopp ku ko deful da jéem a dem bootu ji ci kenn. Mhm. mais actuellement bootu ci kenn parce que kenn xamul sa ëllëg lan la ñoom responsable ñi am nañu ay dossiers yoo xam ne bu ñu leen ci toppee mën nañ dem tëddi kaso. Mhm. léegi kenn wóoluwul bootu ji si ginnaaw kenn parce que ñun ñëpp tam dañoo suspendre fi ñu taxaw di xaar lii nga xam ne nañ ne dañuy teg parquet financier ñu doog a jublu si ba noppi ba noppi ñu doog a mën a wax xanaa xam nga loolu moo tax APR daf a bloqué. Mm. parce que ba si ñom gissago ko que fi profil ne dama bëgg opposé carrément ont fi ku fi def déclaration wala parti après déclaration en cascade lay mm. responsable ku man sama parti mais actuellement da peut-être j'aurais besoin d'une solidarité il y a aussi cette mutation dans le politique euh, Moustapha qu'il ne faut pas aussi omettre.

mu ne sénégalais duñu fal waaye dañuy folli mm-hmm. folli la ñu gën a mën ko fal mën naa ko expliquer noonu mm. mu ne le vote sénégalais stratégique à chaque fois bi voté dafa am loo xamante ne mi ngi ko ci seen mën na votel bi élection bi ñu teg ci quelques mois après mu mu mu mu mu votel keneen donc loolu pour man lu jara jara jara jara bàyyi xel la beneen bi mu ne bu ñu falee président gàtt gàtt nañ ko far ñaar ñaar ñaar ñaari mandat mm. te pour man loolu histoire daf ko wane président bu fi amagum benn mandat gisaguñ ko fi. Mhm. gàtt gàtt di nga am amaat. léegi bu dee gàtt gàtt di nga am ñaari mandat lan lay wane yow boo mhm. di nga toog fukki at doo ñëwaat. Mhm. léegi ki nga xam ne dafa daanu. te fii ki daanu dafa am benn benn benn lecture bu nit ñi bu bu bu nit ñi di am ci moom boo daanoo gars yi dañuy boo jegee ni sax dañ naan daa daanu dama bëgg a jàppaale xalangu. du ma ànd ak moom di xalangu loolu lañ lay wax na dinañ ànd ak yow daanu waaye du ma ànd ak yow xalangu. léegi du ma ànd ak yow xalangu moo lay rey. mooy moo nag moo moo waraloon tey ji ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon euh, du du du temps de Wade ak euh, socialiste si bi ñu daanoo xam ne affaire bi ñëw bi du yomb ñu wut ay raccourci wiiri dem duggaat ci régime bi. c'est vrai noonu lañ def wiiri dem ay mais ñi nag ak ni ñuy xeexee transhumance peut-être mën na changer donnée bi des gens nekk si biti xeex mais ak yan moyen hmm. ak nan la ñuy xeexee ak xeex tamit. la nga fekkee su fekkee ne da nga am ay dossier wala loo xam ne dañ ko teg si ginnaaw nooy mën a xeexee mënul nekk

Le PDS allié Pastef là, mais moi j'en suis pas trop convaincu, Moustapha. boo xoolee PDS. oui seen li ñuy joué. Mhm. ba ñu jógee ba ñu élection présidentielle dañoo dem ànd ji ak ki nga xamante ne moo di Jomaay euh, président. Mm. te ba léegi booy xool nag Jomaay la ñu gën a jege. Mm. te yàlla dafa leen dimbali nag depuis euh, locales yi ak législatives yi. wala mm-hmm. législatives yi intercoalition bi dafa leen a loolu ñu bëgg ko wala ñu bañ ko intercoalition bi daf leen dimbali bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. parce que tey jii fépp foo nga xamante ne PDS dafa amoon doole dafa gagné bi élection yi ñëwee dañoo gis ne. Mm-hmm. président Diomaye gagné ne ko. léegi loolu lan moo dese PDS. Mm-hmm. bu mu war a mën a génn moom kese dem wuti ji nga xool lan lay lan lan lan lay am su demee wuti ji. Mm. kon PDS fi ñu toll dañuy jàpp ne parti la boo xamante ni il faut ñu koy remorquer muy dem. Mm. bu avenir am survie am pour man li ko arrangé ak li ko dimbali. mooy Diomaye président mooy dimbali. donc mon lui il n'a aucun rôle à jouer. le PDS non PDS fi ñu toll amul doole. Hmm. PDS parti la boo xamante ne amul doole. parti boo xamante histoire Sénégal jàpp na ko. Hmm. am na fi taarix. mais dafa dem ba toll foo xam ne dañoo bañ a def renouvellement. Hmm. maanaam lu yees adapté wu ak ñi nga xam ne la situation réew mi toll. mais ni ñi ko ñi ko mënoon boot ñan lañ mais ñoom Baara Gaye la. ñooñu nga xam ne génnoon nañ dem dem ci yeneen parti yeeg ñoom Toussaint Manga

Mm. léegi bo nekoutul menace ken dootu la ragalati. Mm-hmm. bo démé élection déjà moyen yi da dafay des euh, pour nga am dara dafay dafa dafay compliqué moo tax ma ne ëllëgam dafa neexut wax rek dé mm-hmm. mais ëllëgëm ak suba mak yëpp fi ñu toll ñu dem élection législative mu dem dugg ci coalition jomay président. Mm-hmm. profito amaat fa ay député di igisté wat à l'Assemblée nationale bu génné ci député yoy tamit mu jéem a xool naka lay def boobu gën a renforcé wu nag après su boobaa nag ñu def nak li ñu wax benn ndëpp national daal di leader yu bees wut benen taxawaay yu bees wut benen xarkanam bokku ci jeu bi daal di xex parce que fi ñu toll dañoo toll foo xam Sénégal li ñu gëna a bàyyi xel. Hmm. mooy euh, personnalité nit ñi. Hmm. nit nit ñi parce que bo gisé Ousmane Sonko bi muy door. il hmm. n'avait pas d'appareil il n'avait rien du tout. oui. mais son discours façon de faire am tam nit ñi adhéré topp ko. tout à fait nañu construire des hommes politiques yoo xam demain ils vont faire rêver les Sénégalais après ñu adhéré li nga xam di seeni politique ah, peut-être ñu am chance ci élection présidentielle ou législative. -hmm sa copain démb gis naa Pape Djibril. <laughs> démb bi mu ko euh, gisal ma ne xaritu Ndiaye ngi nii. te mu jàpp est-ce que man déglu na prise de parole am dafa mel ni j'ai suivi euh, mon ami pap jibril et eh, pap jibril dóor na leen dóor yu sax.